moi, ce que je dis à Jaina, c'est que euh, tu es une fille brillante. Parce que, au moins, toi, Jaina, tu as un talent. Tu as un talent et tu une très belle voix. Et tu es très jeune. Ne te laisse pas influencer par ces gens-là. C'est des, c'est, des, des, des, vipères. C'est-à-dire que, Sénégal, li les gens mettent, les gens moi, ñi dem ba gaare ba amatuñu solution ba dem ba màgget ba roode ba yàqu ñoom ñooy créer seen lobby di influencer xale yu ndaw yi bëgg leen defloo yenn yi et elles elles sont elles sont euh, elles sont elles elles ont les étoiles aux yeux elles pensent que la vie c'est boum comme ça tu es milliardaire comme ça tu as de l'argent comme ça non tu as des problèmes comme ça oui mais t'as pas l'argent comme ça ça se passe pas comme ça c'est soit d'une soit tu prends ton chemin tu fais ton petit bout de chemin et quand tu prends ton petit bout de chemin certes que di nga am ay erreurs Tout le monde en a fait. Jaina, moi j'en ai fait. Des erreurs, j'en ai fait. Mais aujourd'hui, qui peut mettre la main sur mon erreur Personne. There was not exposed. C'était pas sur les réseaux. Des erreurs, j'en ai fait et j'en ai fait même pire. Moi, je me dis, si aujourd'hui un Sénégalais pouvait voir la petite erreur que j'ai faite dans mon passé, mais aujourd'hui, je serais même pas, je serais une personne non grata au Sénégal parce que du sale, j'en ai fait. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à un moment où je me suis comme de la levure. comme tu mets de la farine levure, la farine gonfle, mais après 4 heures de temps, la farine se, se repose. Et ça, c'est la conscience, c'est la maturité. Parce que tu vas te heurter à un mur. Non seulement, je dis ça parce que les gens qui t'entourent là, c'est des gens qui ont une carrière. Un, un diplôme. Deux, deux, deux, deux, dañuy langaamu ci yow loo am may leen bu weeja amee ñu ñëw weeja la du ñu ay àndandoo duñu ay xarit te man duma la jëy naa la wii jëy naa erreur la du erreur yaa ko tey first time def nga ko ñu ne erreur la anyway avec euh, le cas de l'autre là mon tonton je vais pas dire le nom parce que c'est pas le cas erreur la woon j'ai compris et ça m'est arrivé personnellement j'ai été on m'a blagué aussi c'est comme ça ça arrive à tout le monde di nga gis ku am xaalis mu gëmloo ni que je vous ai dit faites attention aux Faites attention aux milliardaires, vous entendez pas. Le milliardaire n'est pas là pour te rendre riche. Le milliardaire, répétez après moi s'il vous plaît, le milliardaire est là pour m'utiliser. Les milliardaires ne sont pas là pour vous rendre riche. Les milliardaires sont là pour vous utiliser. Il faut répéter ça après moi. Quand je vais finir le live, répétez après moi. Nabou a dit, les milliardaires sont là pour nous utiliser. Les milliardaires ne sont pas là pour vous rendre milliardaire. C'est votre tête et vos efforts qui vont vous rendre milliardaire. Fii kenn dofu fi jël xale bu jigéen boo xam ne xam moom fu mu jóge jox ko ay milliards amatu fi lenn mooy am jox ma ma jox la te am na loo xam ne mën na ñàkk ok si tu l'aimes si tu as un kiff parce que tout le monde a un kiff moi j'ai un kiff si j'ai un kiff ok tu as un mais bul ko jël yoonu tool cause you know what you gonna spray your yàq sa réputation ngay yàq après c'est un truc très difficile Juste prendre des exemples. J'ai des grandes sœurs, on a tous des exemples au Sénégal de la réussite et de l'échec. Regarde devant toi des gens qui étaient publics, des femmes publiques, fu ñu commencé ak fu ñu mujjee soo xoolee rek di nga gis fii ku jéer gis qui cherche trouve les réponses sont devant toi Dieyna tu vois et moi franchement je te juge pas mais ce que je te dis c'est que tu devrais te reconcentrer sur ta carrière reconcentre-toi sur ta carrière sur tes ambitions tu bi nga bëgg dund noonu tu peux le faire, mais d'une manière très saine. Parce que les gens vont, vont pas te laisser comme ça. Même si demain tu es milliardaire, ils vont te dire quoi Xanaa di yow yow yow la job Isaac defoon lii xanaa di yow la Bri defoon lii xanaa di yow nii dañoo mën a yàq der mais bu leen may fu ñu ko yàqee that's it make the money li leen gën a xam nga sénégalais li koy metti mooy ñu xool ngay live ñu xool sa ginnaaw xam ne xale bi fu mu dëkk nekkul këru bla bla dëkkul si si mbedd ndakaar yi xool sa kii gis say pot de fleur xam nga gis nga sol benn like you fresh tu tu tu tu tu la lumière mais tu tu you fresh you know, tu es chez toi, il y a ton enfant, il y a ton mari, tu, tu, tu, as tes affaires, tu as tes business, tu as de l'argent. Ça leur fait mal. Le Sénégalais n'aime pas quelqu'un qui est joli, qui, est, qui sent bon et qui, et, et qui est éloquent. Et, et, et oh là là, Dieu n'aime pas que... Il y a le beaucoup de mais je pense que ce soir, je vais me faire plaisir. Le Sénégalais n'aime pas l'excellence. Il aime la médiocrité, mais n'aime pas l'excellence. Donc là, le seul... Le seul euh, comment dire, le seul, euh, le, le, impact, la seule revanche que tu peux avoir ici au Sénégal, moi, nga yor laada, ni bu paree xolal, gën leena a sansé, gën leena xam terme yi nekk seen kaw té do leen wacc, di leen door chaque jour alkati du bay yonam. C'est ça que tu devrais faire, mais pas nga topp ay affaire de narco, dem di sàcc kii dem tek ki deal, tek deal ñun ñëpp def nañ ko. on l'a fait moi j'étais à Yala Sourène et on sait tous que à Yala Sourène les élèves tous tous les élèves ils m'entendent tous les élèves de Yala Sourène de Machallah on était les meilleurs en en termes de deal jël sa chèque parrain dem ay or lal ours on l'a tous fait mais à un moment donné si tu fais une erreur que tu te casses la tête change de route c'est pour ça que yàlla deful benn yoon kese tey boo jaaree boo bëggee dem à péage nga jaar côté west kii bi yoof bi mu am mais da ngay teggi yoon bi am na embouteillage teggil am na ay barrage teggil mais doo taxaw di mbëkk mur bi come on man Dieyna tu es toute jolie tu es toute jeune tu as une nav tu as un avenir en plus tu es une fille intelligente mais qu'est-ce qui te pousse à faire des détails comme ça moi je comprends pas iPhone 11 lan mooy iPhone 11 lan mooy iPhone 12 lan mooy oto lan mooy oto du dara du nit ñee lay dofloo rek yow yaay xam li nga mën yamale say bëgg-bëgg xam ni man lii laa bëgg mais sama bëgg-bëgg at man kat lii laa ci mën nga jëm ci li nga mën kenn du la ne yaa def kenn du ne la yaa fi jël police du la fëgg gendarmerie du la wër banque du la du duñ la wër duñ la def SOS duñ la def mandat dara duñ la def déposition plainte non désirée doo am yooyu yëpp t'es pas obligé est-ce que vous êtes obligé de de de vivre une vie qui ne vous qui qui qui qui qui qui qui qui n'est qui n'est pas euh, accessible est-ce que on est obligé de vivre une vie accessible vis avec tes moyens soo bëggee ay abonné soo bëggee ay view lijjanti ko si sa wëy parce que tu chantes bien moi j'ai pas une belle voix là si je me mets à chanter mais les gens ils vont dire mais Nabou franchement wëy moom baal nañ la ko je je ne chante pas bien je je, je suis pas excellente partout moi j'ai le speech man dama am lu ñu naan un talent inné moi je j'ai, le stand-up Dieu m'a mis une bouche en or où tout ce que je dis ça passe fluide lu ma wax nit ñi téye ko là il est 23h il y a 1000 personnes à connecter lii du du du luxus du sëriñ man la you know man la that's me <laughs> tu vois mais je je je je sais pas tout faire je sais pas tout faire donc ci li ma mënee foofu laay defee sama xaalis. fexe li jënti leneen teg samay pierre fais de la même tu as une très belle voix tu es très jeune tu es bien encadré s'il te plaît toppatool sa carrière et puis une autre chose la famille la famille gis ngeen la famille ku moytuwul seen famille yor sa famille ñi sa nga famille yi tamit lu ñu leen waxal ñoom la di nga gis famille boo xam ne ils sont quinze personnes yaakaar yépp benn nit la yéen famille yéen man man man famille sénégalaise yi il faut que ñu yóbbu leen Afghanistan man xool naa ba xool das it suba dinaa wax parce que man vous savez nous sommes pas tous nous sommes tous dans le même pays mais on a tous des des des des des comment dire man aujourd'hui je peux discuter avec le président tranquille tu vois ça passe crème je vais l'appeler dinaa ko ne mu indil ma benn avion bu vide famille sénégalais yi ñu dugal leen yóbbu leen Afghanistan parce que lu bëri tamit ils sont responsables ils sont responsables à 50 pour cent tu vois une famille de 15 personnes liggéeyewuñu xëyuñu gontuñu yor seen kurus wékk wékk seen teraanga si jay naa jay naa di jàng ñu ne ko da ngay jàng xamal ni que kër gi moom ci ntàkku fi xale bi par nii di dem parce que ku nekk dafa bëgg njaboot ku nekk dafa bëgg yaay ni ma bëggee sama yaay nga bëggee seen yaay dem si mbedd bi xamoo nooy def seen cin tàkkul nga dugg ci ay problème indi leen xaalis suba boo amee problème ñu naan la kii de man kii de xam nga ni man bett na ma xale bii ni bonee sa propre maire moo koy wax wala sa propre mag wala say frère donc li nga mën nga mën li nga mënul mënoo ko sa famille bu dee danoo bëgg ay rêve euh, euh, euh, prince Henri prince Henri 2 wala prince Henri 3 nañ ko lijjanti yow li nga mën ngay def àq nag nja ndey dina am àq doom doom dina am àq wéyjur mais wéyjuru jamono ji am ngeen àq de xale bu ndaw ngeen bëgg ko sax seen dépense waa yow de kër gi dara tàkku fi yaa ngi dem jàng ji waaye moom yow a xam ni kër gi moom dara tàkku fi moom waa waaw man moom juruma la moom sa morom yaa ngi ni dawal ay 4x4 na bu daase nga nii këram la yor di la dëkk ndax ku xool kër xam ne du kër ca moom takk savaam weexal ba xees pecc daf ay lèvre am toog jëkkër yaa ngi ne da koy mbaj ko may 1 million jénaa ñàkk nga jom pourquoi doo def ni na bu daas doo def ni Nabou nga am lii doo ni ni ni ni Eva Tra xanaa gisoo Eva Tra TFM la nekk di fa dawal 4x4 doo def ni jabaru Youssou Ndour bi mais ku wax ni que moom mën na ko def yéen lan mooy seen problème yow sometime just take a gun shot leen ñoom ñëpp des gens ils sont malades defal nit kii yow xanaa gisoo sa jabaru frère bi ni mu mel Europe la nekkoon ñëw 15 ans la fa dem tabax na fi ñaari château waaw yow xanaa yow kii yaa ko dàq sax xanaa xamoo ne góor ñi ni ñuy def ba doxaan ko may ko teraangaam defal noonu Nabou Dash nga xam ne léppam kiiwul te yow dangaa naturel xees naturel te moom dafa yokk tu vois c'est compliqué tu vois donc c'est compliqué maintenant toi tu vas faire comme Nabou Dash et tu sais pas Nabou Dash si man tëbbuma tëb nekk Nabou Dash je suis je me suis pas levée comme ça d'un coup bam Nabou Dash non Youssou Ndour ne s'est pas levé comme ça d'un coup Youssou Ndour Youssou Ndour dafa am jaar-jaar Sidi Diop dafa am jaar-jaar Wally dafa am jaar-jaar da am sa jaar-jaar mais nekkul nag jaar-jaar bi koy forcer bëgg tout le temps ñu ne la Dieyna police prison tey ban góor moo lay doxaan Dieyna tey góor boo ne allo mu ne la da ngay filmer xoolal réputation bi nga am. Vous voulez Vous, dire de gros mots, mais moi, franchement, vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle... Euh, anglais, il y a un terme. Bad bitch. You know what is the bad bitch? is able to make the money in the, cool side and you know make trouble your husband bad that's what calling bad bitch being a bad bitch is not like going to the club drinking smoking shaking your ass no that's the house Maintenant, le jeu, il n'est plus dans les rues. Les jeux, ça se passe chez vous. Jouez chez vous. De préférence, avec vos hommes, avec vos maris. Oui, que jouer avec quelqu'un qui t'a pas encore épousé, après tu es enceinte, on sait pas ce qui est le père chéri, il y a d'autres programmes, moi je suis pas dedans. Du coup, il y a plein de manières de se faire de l'argent. mais s'il vous plaît, restez discret, restez euh, essayez, c'est pas évident, mais efforcez-vous de rester droit. Parce que ça va vous rattraper et croyez-moi, ça va vous rattraper. Un cas, par exemple, moi, c'est parce que je suis quelqu'un, j'ai un, tu vois, j'ai un niveau d'esprit très, très up. Du coup, c'est pas facile de m'atteindre. Mais par exemple, supposons aujourd'hui, il y, a des, il, y a, il, y a, il y a des choses que je ne peux pas accéder. Maintenant, j'ai je, je compris, par exemple, mon tatouage. Euh, j'ai fait un tatouage Et qu'est-ce qu'il y a Allez dormir. J'ai votre monnaie. Regardez-moi ces enfants, on dirait que j'ai leur monnaie. Ah, voilà. Le tatouage, quand je l'ai fait, j'avais quoi J'avais 14 ans, 15 ans. Ma mère m'a dit, j'ai commencé avec celui-là. le diamant. Parce que moi, j'aime le diamant, j'aime l'or, j'aime l'argent, j'aime le bling-bling, j'aime les grosses trucs, tu vois, ça c'est moi. C'est pas Yeina, ça c'est Naboudash. Mais ma mère, elle m'a dit, tu fais ça pourquoi J'ai dit, non, maman, t'inquiète, je suis jeune, tu vois, on peut, je suis à la mode. Et autant, c'était Lil Wayne, xam nga, temps où Lil Wayne, Ciara, yooyu noonu, temps yooyu nga xam ne da ngay sol ay ñaari kaw su couleur. Ma mère, elle m'a dit, un jour, di nga ko regretter. Je dis, sama yaay moom dafa dof, kii ay waxu dof rek lay wax, ban regretter, man may am xaalis. Mais aujourd'hui, mon fils joue avec moi, dit « Maman, je vais faire ça. » Je dis « Si tu fais ça, répète ça encore. » Tel parce que man xam naa ni que lolu baaxul parce que tu peux le faire dans un endroit discret. Limite, les gens ne le voient pas. Mais quand c'est exposé, mon faire et de le juger. Les gens vont te juger. Vont te regarder que dafa tatoué. la Te ñi xolal ñi gëna bon sax bo len xolé sax do ko koko fogg té ñoo gëna bon. Mais ñi ñi da ngay wéx dunk rek. problème bu am ñu dugal la ci donc l'habit ne fait pas le moine mais xoolal nekk leen ay bandi xam leen ni ngeen di soloo ngeen nekk ay nandite seen yaram yi bu leen def dara ngeen passé inconnu di rey ay nit te kenn du ko mais il suffit que nga wane ni nga mel rek gars yi dëkk la foo dëkkul ça c'est impossible pour vous dire juste que aujourd'hui c'est un truc que je regrette heureusement pour moi j'ai les moyens de l'enlever mais il des gens ils ont pas sunna la sunna machallah je l'enlève dans deux ans si j'ai envie je mets le voile basta et je pourrais dire à mes enfants que j'ai fait ça baaxul c'est ça il faut vivre ces expériences mais il y a un limite il y a une limite il y a un stop